amee bu passé nag yorinu bon wi nga xam ne maanaam moo ca amee nag kàcc yeeg fen yi nga xam ne ñu ko jiite moom lañ ci nekk loolee moo doy waar ay publicité mensongère ndax nag journal bi nee na compagnie Air Sénégal dafay def ay publicité di wax Dakar New York Washington waaye nag ñi nga xam ne ñoo koy jël xam nañ ne loolee wax ju teguwul fenn la ndax au lieu que ñu yóbbu la ba Washington maanaam lañ la yóbbu bu boobaa nag boo fa wàccee mën a jël ab mën a dem Washington journal bi nee na bëri na ay jafe ki gàllankoor yoo xam ne ñi nga xam ñoo ngi jël Air Sénégal ñoo ngi jànkonteel ak moom ñi nga xamante ne nag ñoo ëpp sa personnel ba maanaam ñi nga xam ne ñoo fa liggéeyee ñoom dañoo mer ba maana day taali waaye nag ki ñu mere du kenn ku dul seen directeur général bi yéene kaay gi di réew mi ko dijee moo ci xëy ñëw journal bi di Vox Populi xëy wax ci police bu Medina ak faux billets yi nga xam ne teg na ko loxo ca diwaanu na jamono ji na xayma bi yegg na ci juróomi milliards journal bi de Les Échos yàlla baax ndax nee na police yu Medina keroog bi nga xam ne moom la ñuy dem ci waa ji nga xam ne moo doon yëngutu ci lu jëm ci wàllum faux billets yi oto boobee ab camion moo ko fela ba ñenn su am ci ay gaañu gaañu gaañu-gaañu yooyu la ñu demee ca nga xam ne moo yoroon faux billets ca diwaanu Cambérène ba ñu demee dañoo xeex ba ne saay journal bi di libération xëy na ba léegi ma ngay wéy ca diwaanu Sara ci marché gré à gré bi nga xam ne am na fa ci xibaar naan ñu express régional tey jii dina commencé daw ginnaaw nag ay yoon yoon yoo xam ne maanaam wax nañ ne dana daw daal di koy dàqaat journal bi nee dina am fukki fan juróom yoo xam ne ñi ciy dugg duñu paas maanaam du ñu fay journal bi wax na ne train express régional boobee li ñu ko defaree ëpp na 1000 milliards journal bi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu la Sénégal sur les rails journal bi di Sud bi di Vox Populi danay xëy ci train express régional maanaam ñaata lañ ko defaree ak ñaata nit ñoo fay liggéeyee ak exploitation bi journal bi bàyyiwu ci dara yéen kaay gi di réew mi quotidien l'observateur Sud Quotidien enquête xëy ci proposition de loi bi nga xam ne am na nag société civile bi ak ay député yoo xam ne jël na ñu ko yóbbu ko assemblée nationale ngir nag ñu daal di criminaliser li nga xam ne moo jëm ci wàllum góor jigéen waaye nag groupe parlementaire benn bokk yaakaar ñoom lànk nañ ba tëdd sa naaj ba maanaam d'accord ñu ci ay miiru ñing neen nag ñii nga xamante ni ñoo fi indi proposition de loi bi wàllum politique la ak wàllum faux débat dañoo bëgg a dénigrer dañoo bëgg a yàq suñu dara yéen kay gi de la turbine nee na proposition de loi nga xamante ni yóbbu nañu ko assemblée nationale ngir criminaliser borom ñaari tur yi bay na ku ci amoon yaakaar yaakaar nag nga daal di koy dakkal la ndax nag ca tiroir ya la proposition de loi boobee jëm yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Assane Samba daat nay wax ne projet morne noonu la ko tuddee ndax ñi nga xam ne ñooy majorité bi ñoom duñ ko voté yéenekaay gi de Le Quotidien nee na loi bi jëm ci criminaliser borom ñaari tur yi Benno Bokk Yaakaar ñoom lànk nañ ba tëdd sa naaj waa yéenekaay gi nee na programme bi nga xam ne moo jëm ci CAN Cameroun budget Sénégal bi nga xam ne moom lañu fay demee toll na ci cinq milliards Sadio Mané Edouard Mendy Cheikhou ñoom ba léegi bàyyeeguñu leen journal bi nee na ñàkk gi ñu ñàkk bàyyi loole nag mën naa yàq lu bare ci programme mu Aliou Cissé yéen a kaay gi dee Stades nee na am na fukk ak benn yoo xam ne ci ñi ñu tànn yàgg nañoo def kaan am na ci fukk ak juróom-benn yoo xam ne mosuñoo def kaan yéen a kaay gi de sunu làmb nee na face to nga xam ne moo waroon a dox diggante Ama Baldé ak Modou Lô maanaam face to face boobee mujjutaam la waral Modou Lô bi muy ñëw fan si Ama Baldé yi ñoo ko daal di bombardé mu daal di wàññeekuwaat yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa commandant Thiouna wax ne ñaari lutteurs yi li nga xam ne moom la ñuy waxante woon ak ñoom ngir nag jàmm amu amul kenn ku ko si respecté société nationale d'électricité bu Sénégal